jot na ma jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen jot na tamit ma xamal nguur gi ne man kenn du ma xoqatal may daw ndax tamit dama foog ne ne dëkk bi ñu nekk dëpp dëkk démocratie ndax la nga xamante ne ca Senghor amu ko woon sunu ma papa Abdou Diouf defu ko sunu maam Abdoulaye Wade defu ko te du régime bi fi nekk moo war di ñu xoqatal xoqatal ngeen ma ndëkk xëy na ndëkk daw naa waaye dawuma ndax damaa yor ginnaaw am famille ñëpp yaakaar ci man. ñu jaxasoo moom ma taxoon a génn dëkk bi waaye ñëwaat naa menace de mort yi laa bëgg mu dakk ndax bu leen fàttali mu yàlla du sàkk ci fanweer dara ci fukk ak juróom te dee benn yoon rek la kenn du dee di dékki dem naa dellu Sénat menace yi ngay ma façon menace bu ne appel privé naan naa def sama tes testament pour ñu rey ma dañ may rey Fouta Tampi nag boo gisee mu jóg dañoo jóg di xeex àq ak fu Fouta ndax nag bu leen fàtte ne Fouta ci Sénégal la wala bu fekkee dañu am beneen réew bu ñu bokk bu du Sénégal ñu wax ñu ko ñu gàddaay ndax depuis 1960 ba jonn yàllay tey Fuuta mësul gis boppam ci nguur gu mënti nekk depuis nguur Senghor ba jonn yàllay tey sunu hôpital Ouro Sogui ñu ngi ko inauguré en 1977 boobu ba tey te foofu sunu principal boobu ba tey ci loolu lañ ne am ñu yoon yu baax daanamaay enclavement total la ñu am instant yi xam ngeen ne Fuuta bay dundee la ñu xam ñu ngi yàkkamte nawet bi ñëw waaye bu nawet bi ñëwee benn oto du benn oto du pour ñu mën a jóge ca sa sa sa sa daanamaay ba pour dem jër bi c'est tout un problème loolu moo tax ñu toog di xeex ñu ne déetawaay Fouta amul ay école yu baax Fouta amul hôpital bu baax tey ji emploi des jeunes bi ñuy wax ñun benn usine sax amuñu ko Fouta ñun suñuy jeunes lu seen emploi mooy jël 10 000 francs jël transport ñëw ndakaaru fii defi siiraas bu ñu siiraasul ñu ngi jaay dàll bu ñu jaayu daal ñu ngi def gardiennage bu ñu deful gardiennage ñu ngi jaay soccu wala di jaay tàngal ñii di bëccëg ñu ne nag loolu dafa war a dakk ñu am nag suuf yu dul jeex ñu indi ñun nag foofu noonu ñu am fa tamit phosphate muy phosphate bu rëy tey jii tey sunu sunuy doom ak sunuy rakk war nañ cee mën a bénéficier wu waaye kenn bénéficier aussi bu ñu waxee ngeen indi ñu ay gendarme ba sunuy biir kër duñu dóoru suñu waxee ngeen naan ne da ko bandum fuuta ki di foncer son excellence monsieur le président Macky Sall la ñun nag ñu jóg ñu ne leen déedéet dafa doy ndax ñun waa fuuta lañ te mosuñoo gis suñu bopp ci nguur gi amaana nag yaakaar amoon ci président Macky Sall muy yaakaar ju tas te ñun nag bu leen jàppale ñun ay noonu président la ñu ay noonam boo leen fàttee ñu fàttali leen wala ngeen delluwaat tuuti rek en arrière ngeen delloo cassette bi ndax ñun ñii ñoo ñi campagne le président Macky Sall ba mu fal ñoo def lu bëree bëree bari tey ba Macky Sall jël nguur gi kon ñun tey ban intérêt lañ am pour xeex ak Macky waaye Macky Sall sëgam dafa yor naram te nar nagam yor ay naram di ko joxe ne nar yi muy joxe fuuta bokku ci ñun am nañu droit jóg xeex suñu àq ak suñu yelleef pour suñu wàll ci nar bi ñu jox ñu ko waaye ñuy la xeex suñu àq suñu yelleef pour suñu wàll ci nar bi ñu jox ñu ko ngeen ñu déedéet boo leen ko fi waxee boo leen bu ñu waxee ngeen indi ñu ay nervi boo leen ñu indi ay nervi ngeen menacé ñu boo leen ñu menacé wu léegi nag moom da ngeen ñuy rey mbaa ngeen tëj ñu kaso ñoo nangu nañ suuf si parce que pour bëgg a jël phosphate bi di ko di ko transporter di ko indi fii di ko yóbbu Europe waaw di ko indi port di ko yóbbu Europe léegi tamit xale yi ñoom tamit comme de seen i papa ak seen i yaay ak seen i nijaay seen i tool nangu nañ ko xale yi génn di revendiquer ne nañ leen jox seeni i droit wala ñu jël leen ci sax ñu liggéey ci léegi ñu daale def seen marché def seen marché jeudi va mercredi kay mercredi bi dara xewul donc jeudi dara xewul vendredi ci guddi ñetti oto gendarme dugg ci biir Mbendoo ba ci biir yi néeg ba ci ay rondal du dóor ay am na ku góor ko xam ne toog na ñetti fan deret lay sax ñu ay bopp maa ngi image yëpp après dinaa ko yónni ñu toj ay bopp dem nañ ba gendarme boo xamante ne maa ngi vidéo bi et tout xale bu jigéen bi dafa dem ba koy fekk fekk ji ko ca néeg ba papu xale bu jigéen bi moo daw fekk ji ko bu ko gaaw woon am musiba am kon ay yegg ci kaw te mu jëwul fenn fenn fenn fenn bi ñu génnee ko toog ci plateau tey di ko wax dañ leen na jël affecté leen yóbbu leen fenn maa foog ne nit bu defee mu def dañ koo war a sanctionné wala ñu daan ko ba ñëpp xam ne daan waaye ñu jël ñu affecté leen moo tax bu keneen ñëwaatee mën naa def loolu ñuy jooy loolu pareeguñu alana am accident bu fa am ñetti accident am fa ci ñaari semaine donc accident am fa kenn ku am 21 na ak beneen xale kenn ku góor kenn ku xale ñu def accident parce que fa amul doo daan ñoom ñu ne nañ leen defar ay doo daan génn di revendiquer ñu indi oto gendarme oto gendarme jàpp leen ci dugg tali maa ngi vidéo yëpp ci duggu tali bi yëgal nañ ci biir oto bi génnee sëriñ bi di leen dóor comme ñuy dóor ay mala te ñun duñu ay mala ay njaay lañu ci noppi ñu ñuy dóor ñemewu ñoo ŋaang ñemewu ñoo bu ñu waxee ñu indi ñu ay néeg yi barki démb gis ngeen li xew po li xew Podor ci métier Ablaye Daouda Diallo bi xale bu ndaw ay xale génn na ñoom am nañ ci mitin bi war li ñu def waruñu ko def parce que defuñu fa dara mënuñoo toog fii Dakar toog seen i bureau climatisé saa yu ñu soxlaa waa Fouta rek ñoo di mobiliser nit ñi ànd na ci tey ànd ci ñu ci àndati xale yi génn ñi ñu xar seeni bokk bopp ak ay jaasi ñu ne déetawaay nga gis koo xamante ne ñëpp a ko identifié nii kanamam gis nañ ko ñëpp gis nañ ko ñu jël xale bi yóbbu ko ba ci teeree bi di tëb ba ci kaw di dal ci kawam di tëb di dal ci kawam mel ni rek kuy dal ci mala mala sax boo koy rey sa yaram dina daw nga xool xool ba fi ñu wax nii waxuñu ci moom dara waxuñu problème de xam ñu ndax dund na xam ndax dana te kooku ba tey jii mu ngi dund waaye mu ngi dund ay conditions difficiles anañu sunuy leader ñun bu ñu demee bay ut ay leader leaderu Fuuta pour ñu ñëw taxaw pour ñu xeexal sunu ak ak sunu yelleef amaa foog nañ ko waroon a def waaye tey sunu leader ñu waroon tey aar sunu leader yi ñu waroon taxaw ñoom ñoo dellu di ñu dóor ñoom ñoo dellu di ñu noot ñoom ñoo jël bu mu njaamee dekkal ñu ko suñu te ñun na dootuñu ko nangu dama naa ne nañ nangoon dootuñu ko nangooti lañu bëggoon dootuñu ko bëggati fuuta ba woon démb ak fuuta ba tey ça fait deux comme ono mbino noon président Macky Sall wino ɓinguel morotowo mortaka ñana juulo ko caggal julde morto min mbimama juumi kan mi natti wonde ɓinguel morowo minen komin morotoɗo tan kala morowo hamin jogui kalis amen ene wawi morde min morat ɗum morat min kono so tawi ko ɗum joni min dummima min gonta jooɗo son cikki noon ko gulloton ko e ko mbaɗat ronko e nervide ɓe gaddat to min ɗi e menace de moɗe mbaɗat hon ɗi ene addana min hutirade caggal wala ene wonɗon addana min hulde ɗum ama émission pa alama madame ana koye ni sama travail madame émission ɗi mo émission ɗi partene am ɗum def yaggana ɗum ci ay émission ɗi émission ɗum probléme mais émission pa alama dal andi ini ma 19 20 heures xaw ma 21 heures yooyu daal ci côté yooyu mu woo ma appel privé te yaay Fatimata Ndiaye ma ne waaw yaa ne président te ay tukulóor la tukulóor lay laaj aussi yaa ne président dafa dara fi bu lay boo ma laajal sama ko préparé daf la fa teg sama boo ko defee ba sax ma ne ñu ci sama ko ko def une heure du matin privé woowaa yow buñ la jàppee dinañ la rey daf la fa teg sama boo ko ko defee dinañ la rey j'ai même un audio boo xamante ne ci benn panel lañ ko waxee benn waaye mu nga Gabon mu ngi tudd Abou Diallo Balil donc su PDS la nekk mais mu ngi mu ngi APR mu def audio bi ne leen waru a wax nañ ko dem wari ji fu ñu ko gis nañ ko rendi politique rendi bokk ci muy défendre foofu naan bàyyi leen ko dafa juum wax na lu ëpp mais bu leen ko rendi ma ne ok man yooyu dox ma ci ma ne wax ay wax la daal duma ci topp ma xëyaat encore mi woowaat ma ma ne lii c'est trop ma woo sama benn xaritu commandant dama wax turam ma ne ko damaa bëgg a porter plainte mu ne ma dinaa am ku ma la boole nga dem gendarmerie Foire nga dem gendarmerie Foire porte plainte génne appel yëpp ñu ne dañ ko jéem a tracé tracé beneen bi deuxième jour xaw ma troisième jour ay nervi ñëw nañ ci koñ foofu HLM Grand maa ngi dëkkoon sama kër yaay ne nekkoon dama obligé ma génn foofu. ndaw dem euh, cité comment dirais-je cité Djily Mbaye dem dëkkiwaat fa jóge HLM Grand Yoff pour nervi yi daw demaat cité Djily Mbaye parce que boobu xam nañ kër gi te maa ngi dëkkaax maire bi te mag la en plus euh, ñemewul maa xam moom rekk nekk ci kër gi ma obligé quitter foofu dem cité Djily Mbaye dëkk ji fa ma dëkk cité Djily Mbaye si di gën a continuer ma jógewaat cité Djily Mbaye ñëw dëkkaat Wokam Comico côté case des tout petits ci suuf donc bi ma dëkkee Wokam Comico toog donc am ma grande surprise dama fa dëkk bi ñu ne ginnaaw suba la Korité laa fa dëkk mais le vingt ci guddi am ku ma woo foo ne sa kër ma ne ko mu ne ma génnal léegi ma ne ko génn fu ma jëm mu ne ma ñu yónnee ci yow am na ñuy ñëw génnal ma ne ko loolu xaw ma ne ngay wax ni ngay wax ko ñu ngi yónnee ci man pour la man laa def mu ma génnal ñu ngi ci ay néeg bi génnal ma ko du ma génn ma toog ay 15 minutes 17 minutes rek mu ñëw du sonné sonné bu metti tëk tëk tëk tëk man ko defal nag bokkal la donc ma ubbi buntu bi juste muy moom génnal gaaw génnal énervé ñu ci génnal man ko du énervé énervé mu ne ma génnal ma jël ñaari ma saag laa jël ak ñaari carax yu bokk ndeex baay bu verte ak bu bleu moom laa génne sama kër maa ngi dëkk deuxième ma daw wàcc damay wàcc juste parce que ñun suñu koñ bi dafa am suuf moom fi mu gaare ci kanam la woon dama wàcc juste ci bitig bi noonu juste rek am na foo xamante ne dañ fay def euh, salle de musculation auto pick-up bu weex bi taxaw amul matricule amul dara ñu am ay nervi ñu takk kagulewu euh, mais am na keneen koo xamante ne mu ngi toog si ginnaaw mais jotuma koo gis parce que nervi beneen bi dem na ba ubbi bunt bi sëgg am ko muy waxal foofu bàyyi naa ci xel mais nag dafa dafa gaaw rek ñu jubal ci man ci laa yuuxu donc keneen ki ñëwoon di ma dimbal aussi di jéem a jàmmaarloog ñoom ñi nekkoon ca salle de musculation bi daw génn di jàmmaarloog ñoom si la sama loxo bi daggee nii mhm. xaw ma paaka lañ yoroon xaw mu ngi nii dagg bu metti mu ngi di wér non automatiquement nag ci lañ daw dugg ci beneen oto bi ma doon xaar ma dugg ci ci lañ daw am fuñ ma yóbbu ma daw làqatu foofu ba 4 heures du matin ci laa jël yoon jël samay doom bàyyi leen seen kër papa jël yoon tëj sama appartement daw génn Sénégal ba barki démb laay door a ñëwaat ba mu ñëwaatee barki démb tamit fa ma dëkkoon sax amatuma fitu dëkk fi dama obligé bi may ñëw fekk na ma ut kër pour mën a pour lan ba kañ fan lañ jëm ana Sénégal bi Thierno Omar Ba doon xeex ana Sénégal bi El ci Tijani Anne taxawoon di xeex ak yéen def man tey damay ragal walla di sax naa man sénégalais la ndax man xàmmeetuma sama réew dama naante bu ma mënoon gàddaay dem feneen dama koy def parce que man xàmmeetuma sama réew sax di toog naa man sénégalaise laa ndax fi am ñi mosu fee am dëkk boo xam ne dëkk xoqatal la dëkk boo xam ne kenn newu ñemetu la wax sa xalaat dëkk boo xam te ne kenn ñemetu revendiquer dara man duma rey kotu nit duma criminel jëluma alalu def pour lan man mii ñu téy ma dima du ma saaga nit du ma wax lu ma xamul du ma manqué kenn respect waaye dinaa leen wan ne ne Fane Ndiaye ñëw na avec force avec le mouvement Fouta Tampi ensemble Sauvons le Fouta. may euh, interpeller le président Macky Sall moom mi yàlla teg ci bopp nguur nga xam ne sama vie en danger amaana yëg na ko wala yëgu ko lu ci mënti doon man dama koy wax def cri du kër mu dégg ma bëgg nag euh, euh, ministre de l' Antoine Diome. moom mi nga xam te ne moom mooy ministre de l'intérieur ndax xam na ne doomu senegal jigéenu senegal seen jarbaat mu ngi xeex ak ak yelleefu Fuuta ñu ngi koy menacer de mort yëglu naa ne côté bu ne waaye nañu xam ne sama sécurité mu seen loxo lu ma mënti daal du ma jël kenn teew du ma jël kenn responsable lu dul nguur gi laay tenir responsable kon boog foog naa ne ña ñu ñi ñëpp amee ñi ñëpp amee droit. pour ñu leen di protéger man tamit foog naa ne pour l'instant man nii soxla naa protection